def noonu daal di koy gàmm ba mu dikkee Tiwaawan nag loolu mu bëralaat ko ci kër góor gi Jibril Gay Malick ay Fall nettali na góor gi góor gi ma wax léegi di Babacar Ndiaye mu ni ko bu ñu motee juróom-ñaari nit ci la ñu yem nee bi ñuy jëlee ñi ñu seddoo kaamil bi bi ñuy jàngee ba ci njël gi jot ba ñu julli am na ñu foloon romb dégg leen ñuy wax ñu may leen ñu indi fa tuuti ceeb ñi indi fa tuuti dugub ñu indi fa tuuti suukar ñi indi fa benn ganaar nee na xaaj Malick daan leen dëpp leen der yi te ngeen cëral ko te ngeen cëral ma nee na nit ñi mag ñi daan yi dëpp der yi cëral ko kenn ku ne amum saam tonni mu ne ganaar mu ne Malick ay sa turandoom la jëlal ganaar ga jox ko soxna Safiyatu mu defaral ñu ko ñu barkeelu ci loolu bu mu paree mu ne gaañ mu ne mbir mi woyof na lool waaye na diise ba kenn du ko attan yaakaar naa diisaayu gàmmu Tiwaawan tey jii li fi daanu ci nag yu ñuy lotal li fi dugg ci ceeb ak suukar ak diwlin ak leneen ak leneen kenn xamul fu mu toll te nag li nit ñi li li jata indi aussi mooy Seydi Hadj Malick du moom moo créé gàmm baatub gàmm am na lu yàgg ñu koy def ci wàllu ñoo xamante ni bu fekkente ni diina la woon aussi diine lalu ko ndax jàpp naa man ci sama gëstu ni 1493 Béga Ndour di woon buur Saalum gàmm na ci kawoon ba léegi gàmmuk kawoon googu duñ koy def gàmmuk ceddoo la loo def dagan na boobu kaamil taxawagul boobu euh, xasaay taxawagul boobu di mim ya ak nuun ya taxawagul mille neuf mille cinq cent quarante neuf kajoor gàmmu nañu ndax ga mille cinq cent quarante boobu ci la kajoor jëlee seen indépendance ci lu li lelal fu li fàkk di woon buur ba jolof bésub gàmmu lañ ko xeex jëngamam jël seen indépendance ba nag tur bi ñëw na waaye curu gàmmu la goo xamante ne gàmmu ceddo la woon dem naa ci archive yi gis ni ku ñuy wax labbe Boala doomu Ndar la moo njëkk nekk labbe ci Sénégal kooku mu ngi judd 1814 faatu ci 1901 dani bu ngeen demee archive nationale wala ngeen dem ci IFAN ngeen laajte livre bu ñu tudd esquisse sénégalaise esquisse sénégalaise mhm. maanaam livre mu tudd di wane nan la Sénégal bindoo ci jamono yooyu mhm. mi ngi nettali gàmmu gu amoon ci mille huit cent quarante huit mille huit cent quarante huit Seydi Hadji Malick génnagul ganegul àddina Sëñ Touba ganegul àddina Cheikh Omar wooteegul mhm. mille huit cent quarante huit laa wax mu ngi naan gàmm googu de gars yi de ñu ngi wax naan gàmm gi ku ci jur rafet maa la jur ku ci ñaaw juruma la teg seen i seen i seen seen i neexitu àddina kenn ku ne loo def noonu la loolu yaakaar nañ si baatu gàmmu lañ ko def bu mu wër donc nit ñi yàgg nañu am sentiment religieux parce que diine dafa yàgg dugg Sénégal ñi nga wax douzième siècle ñi nga wax dixième siècle donc baat yooyu ñëwoon na ànd ak ñoom waaye nag daawuñ ko def ci li nga xam si noonu la. waaw dëgg la El Hadj atumaan mais ndax gàmm googu ñu doon def dañ ko dëppale woon ak euh, guddi gi nga xam ne ci la yonent bi gane àdduna wala turu gàmm rek la woon mais boo nee gàmm kay mooy turu yi ala euh, Sidi Hadj Ma euh, ci yi yonent bi gane àdduna waaye nag ñoom boobu comme diina taxawagul ñoom kenn ku ne da nga koy feete ca ni nga ko sentir voilà moo tax gaa ñiy diingat hmm. naan gàmm gi teguñ ko ci xaw ma lan ak lan duñu sunna ñooñu du ñu xamul hmm. ndax bu ñu dumee ba jàpp mais alxuraan sax bon duñ naan teg luñ ko sunna ndax alxuraan après yonent bi lañ ko bind. alxuraan après yonent bi lañ ko bind ndax yonent bi indiwul alxuraan après alxuraan la nit ñi dajale daal ni lii waxoon na ko lii waxoon na ko lii wàcc na Medina lii wàcc na Màkka ñu bind ko. ci jamonoy Babacar ci mu ngoog ci jamonoy Babacar. bon nag bu fekkante ne lépp loo xamante ne Seydina Seydina Mohamed bàyyi ko fi bon nag nañu bàyyi nañu waxti mais nag lu rafet di aada bu rafet mooy yokk nit ñi seen ngëm ci ki nga xamante ne nee nañu moo tax yàlla sàkk lu ne. yaakaar ne rafetal ko jarul diingat ñun nag loolu la ñu gëm te Seydi Hadj moo ko jox bi dimension dugal ci nuun ya di ko woy di ko wax dugg ci fukki fan yi bur du ñu noppalu benn bés bu ñaareel ba di gàmm bon nag yaakaar na ni naxuñu te loolu du am solo la Sénégalais yi xam ko bañ daan gàmm bu njëkk ci jamonoy ceddo kenn xamul alxuraan moom moo ko dugal indi fii dugal ci nun ya dugal ci euh, xilaasu zaxab mm-hmm. mag ñi di ko def ba tey Sénégal boo nee gàmm rek ñu ne Seydi Hadj Malick mm-hmm. kon nag kooku day na ko yàlla fayal moom ngay euh, jërëjëf yow it yàlla na yàlla fayal ñu la xam nga Maodo euh, ma ngay wax ca laamiya ba ala azimu leylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu mm-hmm. màggal leen guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ngeen def ko nag mu di ak xisaab seen diggante ak seen borom maanaam na ngeen ko def ci defin wu sel wu yiw bu fekkente ne xëccu leen jëme leen ci lenn loo xamante ne ak deng la wala ak ak mooy yàlla la euh, maam borom Tuubaa Mbàkke feelu ko euh, taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazimi Euh, nee na màggal ko ci sunna <coughs> loolu daf ñuy womat ba tàbbal ñu aljanna mm-hmm. te nag dolli ku xéewal rek moo ci nekk nag mm-hmm. li muxlisin muazzimi ñel koo xamante ne màggal na guddi gi waaye sellal na ko mm-hmm. te nag imaam waaw doguma la waaye nag nañu xam ni Seydi Hadj Malick benn guddi googu la fi bàyyi de xam nga moom gisoo ñu sëñ Babacar gisoo lenn loo xamante ni ci jamono woote na ko guddik Seydina Muhammad te daan wax nag fii ba Ngor Sané ca Jolof képp kuy mu xaddam na nga ñëw wuy sama ci bés bi hmm. parce que la koy la wax foofu la koy wax ci guddi googu hmm. mu nekk benn message moo tax gay nan une nuit un homme un message une message benn guddi benn nit ak benn wax bu ko waxatee ñu dajewaat bu ko defee kenn ku ne mu jox na recommandation ci ni ñu waxaat comme Seydina Mohamed moo tax ñu ñu bind lépp li nga xamante ni mooy ay jikkoom ñi di ko wax ni ñu yóbbaale ko yaroo ci yar ci seen njaboot ndax lislaam mun a nekk diine joo xamante ni foo toll fu ñu la gisee xamante ni kii kat juddit la kon daal moom daf ko def turbinam boo xamante ne ci la doon occasionné pour dajale njabootam yëpp pour lancer message bi nga xam ne moom la bëgg njaboot gi jot ci euh, fi ñu tënkee rek mooy euh, bi mu fi bàyyee ko première xalifaam moo di Sidi Aboubacar Sy radiallahu anhu mhm. moom ban révolution la def ci gàmm waaw xam nga Seydi Hadji Malick fukki gàmm ak juróom-ñeent la def 1902 ba 1922 1922 bi muy bi muy way wuy yi boroom le vingt le 27 juin 1922 gàmm gi mu ngi am ci mois de octobre fekke wu ko. gàmm googu sëñ Babacar moo ko waroon a fekke waaye sëñ Babacar boobu ñëwul ci jàmm gàmm googu ci gàmm ga ca topp la ñëw parce que gàmm googu ndar la ko fekk. ba nag sëñ Babacar mi ngi gàmmu commencé gàmmu mille neuf cent euh, mille neuf cent euh, mille neuf cent euh, mille neuf cent vingt trois ci la commencé gàmmu ba mille neuf cent cinquante six. sëñ Babacar dernier gàmm mi ngi ko def le dix huit novembre mille neuf cent cinquante sëñ Babacar def na fanweeri gàmm ak ñett loo xamante ni daf gën a yokk dimension bii nga xamante ni moom la fi bàyyam bàyyi woon dégg nga maam na mu daan defee euh, xilaatu zaxab mu di ko def woo ga gan ñi woo daay rëy parce que moom moo révolutionné moom moo indiwaat yokkute ndax dafa ñëw dëppoo aussi ak jamono xam ni nit ñi da nga leen organiser mm. organisation sëñ Babacar mu ngi nekkoon ci xadara yi ak ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci euh, yooyu euh, euh, kii yooyu ma wax léegi nga xamante ni ci la nit ñi dajaloo mu organiser ko xam nga premier daayira mun naa wax ne mooy daayira kiram ñu sos ko ci 1927 moom ci ci jamono sëñ Babacar la organiser leen nag ba lépp daal di yaar yoon mu koy def donc de 1923 ba 1956 muy fanweeri gàmmu ak ñett lépp mu teg ko ci yoon ni ko bàyyam sell la woon ginnaaw moom aussi ñi fi ñi fi nekk ñëpp di ko def Alaaji Abdu di ko def 1957 1957 bi sëñ Babacar nelawee ba ci 1994. Mhm. léegi ñu dugg ci air airu sët yi. Mhm. sëñ Mansour da nga sëñ Cheikh da nga Alaaji euh, Aziz Al Amin ba tey kii fi mujj di sëñ Mbaye Sy Mansour. Mhm. moom tamit la maamam defoon mu yokk maamam <coughs> mi ngi gàmm woon. Euh, bi mu sancee gàmm euh, jumaam ji ci 1904 mhm. am autorisation le 17 février 1904 1903 ñu tabax jumaa ji ministre dafa doon laaj euh, demandé tubaab bi autorisation waaw sëñ ab sëñ Alaaji mosul def lu lu lu dëppoowul ak ak ak ak li yoon santaane c'est un légaliste mhm. bi muy am jumaa ji dañoo ñen autorisation mag yooyu moo xoon mag yi Tiwaawan yooyu dañoo ànd ak moom ñu bind lettre mhm. ñu may leen autorisation le 17 février 1903 mu jël ko fii. Mhm. bi muy bu taxaw zawiyam bii dafa bind lettre ñu may ko autorisation le trois août mille le 3 septembre 1904. musul xëccoo musul nangu def loo xamante ni ñax yàlla jamono woon te lool ci moom defuñ ko. kon daal moom nangu woon na autorité. moo tax tubaab yi ba duñu waa bi féexal ko. Mm. bañ ko dégga laaj ni ko lan nga bëgg mun leen ngeen may ma jàmm ma jaamu yàlla ak jàngale yàlla laajuma lenn mosul ñaan dugub musul ñaan ceeb musul ñaan chariot musul ñaan lenn tubaab jox ko cër boo xamante ne joxuñ ko kenn ça c'est très important bon nag noonu la dëkk ñoom accommodé wu ci li nga xamante ni parce que am autorité taxul nga xeeb sa bopp hmm. joxi cër taxul nga ñàkk cër balaa nga xam sa cër da nga joxe cër ñoom xam ni jamono loolu leen loolu leen jamono moo leen may loolu mm-hmm. ci wàllu kilifteef jox na leen ko waaye nangu leen ko waaye li ma bëggoon mooy fexe ba yàqu mm-hmm. def na ba taalibe yépp ñu tënku ci li nga xamante mooy salaatul mustaqim mm-hmm. dundee lu lew parce que dara wax naan ñaan mu nangu mi ngi ci dundee lu lew Ousmane Alaaji Malick daan wax ñaan mu nangu mi ngi nekk ci dundee lu lew donc bépp taalibeem dangay ngay dundee lu lew waaw. jërëjëf voilà may signaler ne dañu waxtu bi ala euh, washakil intiha mi ngi waaj fi ñu nga tëjee mooy euh, comité d'organisation gàmmu yeeg ziyaar yi dañu gis ne COSCAS la ñu tudd mhm. lan moo ko ak lan mooy maana COSCAS waaw xam nga COSCAS mi ngi juddoo ci jamono sëñ Cheikh en 60 1968 ba tey jii ñu organisé wu lool mu tudd ko COSCAS comité d'organisation euh, ah au service de de de de Khalifa Ababacar Sy. mooy gaa ñii. nangu lool kilifteef dogg lool am pas-pas lool. donc ñooñu ba ñu ko lekk leen crier ci loolu mille cent mënut a ñëwul bopp nombre. waaye mu yokk ba yokk ba yokk ba tey jii dëkk boo dem ci Sénégal am na cellule Koskas c'est des milliers bu lii amee ñoom ñëpp ñu daal di bàyyi seen lépp daal di ñëw déedéet déedéet duñ ko def ngir pas-pas seen dog la ak seen tarbiya la ci sëñ Babacar Sy yàlla leen yàlla may fi waaw jërëjëf El Hadj Assoum Atoumane Ndiaye jërëjëf kontaan. yow nag xam naa ne du ñu tàggoog yow de yow dañ lay yow dañ lay invité ci plateau 7TV yi nga ñëw parce que on a besoin de vous. <laughs> incha <laughs> allah moo tax mu ñëw ci guddi gi waaye <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ndiaye kon nag fa tabarakallahu gis ngeen uh, mag ñi nga xamante ne ñu am solo lañu fekkee démb fekkee tey xale yi war nañ di leen jegeñ ndax ñii uh, li nekk ci seen dënn yi. waruñu leen a bàyyi noonu rek war nañ leen a yëlëb ñu génn li ci seen dënn yi ndax njariñu njariñu kese la bu ko defee adduna bi yëpp njariñoo ko waaye rawatina nag njabootu jël Haaji Malick si ak njabootu si Sidi Aboubacar si radiallahu taala anhum ajmain kon nag xam naa dañuy teg foofu sunu baaraam rek te dem ba dellu siwaat ñi ngi dellu siwaat léegi rek euh, inchaa allahu taala avec la 7TV la télé kii nous ressemble et qui nous rassemble asalaamaaleykum woon ca njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel moo jur tey 7TV suñuy programme euh, tënku euh, ci xarañ tegu mag ak euh, ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njoxtu ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo dal nag jàmm ci seen télévision 7TV 7TV. yéen télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di dajale. mbégte li ñu koy defee saa su ci événement bu ne bu jël euh, yegsee rek ñu daal di àndandoo yéen ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare yéen ñi saxoo di wétali ko 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale àndati nañu ak yéen ñëw fii euh, ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan nga xam ne weer wi la bu teroo ñun ñëpp suñu xel day dem euh, ci li nga ne moo di gàmmu gi gàmmu gi nag bu ñu ko waxee si daala jumalik si moo tax ñu ñëw ci dëkkam bi tey fas yéene àndandoo yéen ci événement bi la fas yéene ci waxtaan ci ay jàngaleem ndax ni ma koy faral di waxee saa su suñu mag ñi bind nañ bàyyi fi wax nañu bàyyi fi te itam seede yaa ngi fi ba tey kon ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci bitim réew ak réew mi yëpp di ñu euh, seetaan di ñu wettalikoo rawatina si suñuy plateforme digitale ñu ngi ji biir Tiwaawan fi ñu ñëw nag war nañ fee ñëw ki ñu ñëw pour seq moom waxtaan war nañu seq moom waxtaan ndax nag ci biir këram la ko fekk ci biir dëkkam la ñu ko fekk biir Tiwaawan la ko fekk dëkku maamam la ñu ko fekk ki ñu fa yéene àndandool tey moo di oustaz Habib Kébé bu ngeen ko xamul itam bu baax a baax ci ay waxtaanam yu am solo moom nag moo di euh, Serigne Habibou Kébé noonu woowee man ah, di ki nga xam ne moom la ñuy wax rek sëriñ Abibou Kébé mu sëriñ Mbëx kebe mu soxna astu